conseil sénégalais des chargeurs COSEC moo leen di may seen revue na jàmm ñu ànd xëy yër yéenekaay yi nga xam ne moom la ñu xëyandoo yéenekaay gii di réew mi quotidien xëy génn ñu réew mi yóbbu ñu ca réewum libi ndax libi googe dafa am ab sénégalais bu tudd Abdoulaye Baldé dañu ko fa rey rey bu ñaaw a ñaaw ba pare nag daa di ko fay suula bi ñu ko reyee moom Abdoulaye Baldé ay mbokkam dañoo bëggoon ñu andi ko ci réewum Sénégal waaye nag mbokkam yooye lenn lu nekk def nañu ko maanaam sottiwul ba ñu mujj daal di yooyu nag ji mer nañu ba maara day taal nee nañu état bu Sénégal dasee wane ak yaacaaral yaacaaral gu mag la si wane rawati muy Sarr mi nga xam ne moom lañ dénk Sénégal yi nekk bitim réew ak Amadou Ba mi ñu dénk mbirum affaires étrangères mbokki Abdoulaye Baldé mi nga xam ne moom lañ rey diwaanu Libye ñoom daal en tout cas jamono ji mer nañ ba maara day taal ndax ñoom nee nañu seen mbokk rey nañ ko fa ci bu ñaaw ba pare nag daal di ko fay suul la yéen kaay gi di réew mi na mbir mi ni nga xam ne moom la demee Abdoulaye Baldé mi ñu rey di ab sénégalais doonoon jaay essence ci benn station piicoog mbàlloo ak benn client client bi génn ak fetalam dóor ko ay bal ba xolam sedd yéen a kaay gi di 24 heures ñu xëy fekk fa taskatu xabaar bii di Momar Jong nee na li nga xamante ne état bu Sénégal wax na ko ci lu jëm ci wàllu mbënn mi ak 764 milliards yi bëri na ci loo xamante ni ay kàcc la état bu Sénégal am na ci loo xam ne waxul dëgg askanu Sénégal ndax xaalis bi nga xamante ni wax na ne moom la génne at mu jot waroon nañoo def ab rapport waaye Macky Sall fii la taxaw askanu Sénégal gi yëpp di ko gis muy wax ne saafara na jafe yi nga xam ne moo am ci mbënd mi yéen kaay gi di Sud Quotidien ñu fekkaat ko fa moom taskatu xabaar bi di Momar Jong nee na Macky Sall jamono ji parewul sax maanaam ngir saafara ngir saafara li nga xam ne mooy jafe-jafe mbënd yi ci réewum Sénégal yéen kaay gi di Rewmi Quotidien ñu xëy fekk fa Abdou Khafour Touré moom daal nay wax ci lu jëm ci wàllu mbënd mi nga xamante ni tax na opposition bi ñoom ñëpp ñu daal di jokko daal di jawali fi nga xam ne mooy ca banlieue bu Ndakaaru ngir nag massawu ñi nga xam ne ñoo am ay jafe-jafe ña Abdou nee na ñi nga xamante ni maanaam ñooy opposition bu Sénégal nu ñaaw ñaaw la ñu doxalee ci mbënd mi bi ndax nag li ñu leen doon xaar daal maanaam ñu jël ay matériel yóbbu fi nga xam ne mooy sa banlieue ba dimbalee askan wi nga xam ne ñoo sa loru waaye nag opposition bi defuñu ko daal ñoom ñëpp ñaaj nañ dem sa banlieue ba yóbbu fa kese kese ay discours maanaam dañu faa nekk di ŋàññi Macky Sall te Abdou Khafour Touré nee na opposition bi fi ñu leen doon xaar ak croissance bii nga xam ne am nay jafe-jafe ak crise économique bi ama ngir covid 19 bi dañu doon xaar opposition bi joxe ay proposition waaye nag jamono ji daal ñoom ñoo ngi mel ay tan ci banlieue bu Ndakaaru yéene kaay gi délibération recommandations yi nga xam ne tax na ñu ci askanu Sénégal am ay jafe-jafe tax na ñi nga xam ne ñooy way politique yi commencé seenub campagne maanaam dañu koy politiser yéen kaay gii di réew mi quotidien ñu koy fekk fa Assane Samb moom jàpp na ne dialogue politique bi amul benn sens ndax waroon nañ faa waxtaane li nga xam ne mooy fonds politique yi nga xam ne dañu koy jox njiitu réew mi jox ko yenn institution yi te xaalis bu takko takku la te kenn du ko contrôler Assane Samb nee na loolee waroon nañu ko waxtaane ci li nga xam ne mooy dialogue politique bi ndax sénégalais yu bari ñoo ngi koy ŋàññi xaalis boo xam ne kenn xamul fan lu dugg te xaalis boobee sax waroon nañ koo jëfandikoo ci covid 19 bi wala inondation yi waaye dégg ñu benn yoon ñu ne jël nañ ci fonds politique yi saafara ko jafe-jafe yi nga xam ne askanu Sénégal ñoo ngi koy dund yéen kaay gii di Vox Populi xëy di ñu xamal naan ñu waa Linguère ak taw yi am na ñeenti nit ñoo xam ne faatu nañ sa yéen kaay gii di waa Grand Place xëy di ñu xamal naan ñu askan wi yeewoo ci Rufisque maanaam Tëngéej mer nañu ba maara détaal yi sonn nañ tàyyi nañ damm nañ dee nañ ci ki nga xam ne mooy Macky Sall askanu Tëngéej ñoom sax daat nañuy wax ne li ñuy sàkku daal mooy Macky Sall wax leen génn maanaam lan la ko askanu tëngeej def bu ko Macky Sall waxee ñoom ne nañ pare nañ sax ngir dox doxum ñaxtu ngir baalu Macky Sall askanu tëngeej nee na ñu amul benn projet boo xam ne état bu Sénégal daal dina ko fay def yéen a kaay gii mu xëy ñu xamal lan ñu sëriñu daara yi doon nañu janoo ak taskatu xabaar yi waaye nag mer nañu loola li nga xam ne moo leen merloo mooy daara yi nga xam ne dañu ko tëcc te ki ko tëcc di nga xam ne moom lañ dénk njaboot gi loolee moo tax sëriñu daara yi di sàkku ci état bu Sénégal mu daal di dakkal tojaange giraawaali yi nga xam ne moom la état bu Sénégal nekk Mbàkke sëriñu daara yi nee nañu état bu Sénégal dafay agressé daara te nag ñoom ñoo ngi sàkku daal maanaam daara yi nga xam ne tëj nañu ko ñu daat leen di tëj ji yéen i kaay Vox Populi xëy duñu xamal laan ñu informel bi Covid 19 tax na ñi nga xam ne ñoo si doon yëngu torox ba maara détaali jamono ji amatuñu lan Alla Dieng mi nga xam ne moo nekk secrétaire exécutif bi UNACOIS Yeesal daat nay wax ne Sénégal suñu modèle économique bi war nañu ko sensé professeur Mouniru Ndiaye deb économiste nee na Sénégal lu toll ci téeméer ak ñeent fukk ak juróom benn junni ci ay nit ñàkk nañu seen liggéey yéenekaay gii de Libération xëy di ñu xamal laan ñu aéroport international Blaise Diagne jàpp nañ fa ab terroriste allemand Guinée-Bissau wala jóge ñëwoon Sénégal bëgg jaare Sénégal dem Kenya yéenekaay gi di Source A xëy génn ñu Dakar yóbbu ñu département bu Mbacké ci commune bu ñuy wax commune bu Ndioumane foofee nag ña nga xam ne ñoo fa yeewoo di askan wa yamb yi ñoo leen sonal ay yamb ñoo fa rey lu toll ci fukk ak juróom ci ay bëy gaañ fa ñu baree baree bari journal bi nee na service u ministère bi ñu dénk wàllum élevage bi ñu leen woowee yéex nañoo ñëw loola yéenekaay gi nee na mujj nañoo ñëw